plaisir de vous retrouver amee internautes de Sunugal 24 ci Pello ak ci Steva comme niñ koy baaxoo di defee euh, saa su nekk rek di fi dalal ay ndaanaan waxtaanee ko lépp di kaf foo ak ree tey dañu koo xam ne c'est un frère pour moi euh, jaar na fii mu di euh, Billy Boy de Fakman plus connu sur le nom de Samir de Poté Marichou Samir de Virginie disons même Samir de de Marodi TV moom la ñu dalal tey mais Samir aussi de une femme un mari moom la ñu dalal tey accompagné de sa belle Vanessa ñu fas yéene ko waxtaanee rek xam naa ne dama leen di bàyyi ak euh, li nga xam ne moo di kàddu gi ñu nuyoo bu ko defee tey émission bu dara neex bu spécial laa leen di andil tey parce que ñaar ñi nga xam ne actuellement ñoom la ñëpp di waxtaanee ñoom laa dalal tey ci biir Sunugal 24 donc dama koy commencé ci Samir nuyu naa la. nuyu naa la Eva nuyu naa leen chers internautes waa Sunugal bienvenue dans l' émission Pello. Je suis très entouré de très belles femmes, donc soyez pas jaloux. Hein. Aujourd'hui, je suis avec la belle noire d'ébène et aussi avec euh, mon épouse dans Une femme, un mari, donc euh, Vanessa. Donc l'une d'une nuyu, Dylan Teral Boubar, et puis euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner comme pour la suite. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Sunugal 24. Le plaisir est partagé. Gis que Garonne nga fi mais sénégalais la laajaat donc. Euh, dama def le tout pour que nga dellu siwaat ñu waxtaane ko Vanessa bonjour bonjour bonjour à tous bonjour Eva Siste Eva bonjour à tous les internautes de Sénégal 24 et c'est un plaisir d'être là voilà et partager cette émission avec euh, vous et tous les internautes merci beaucoup dama leen fàtte wax que Vanessa son vrai nom c'est Paulette xamee ngeen ko ci écran yi une grande dame l'élégante la charmante la grande musicienne <laughs> euh, gis nañ ko actuellement ci série yi nga xam ne moom mooy daw ci euh, Sénégal mën naa nekk série bi nga xam ne mooy def buzz actuellement muy une femme un mari mm-hmm. mu nekk ci euh, ki nga xam ne moo di soxna Samir ñaari couple boobu nga xam ne <laughs> couple bu doy waar boobu donc on va commencer avec Samir vu que gis nañ la chaque fois nga nekk ci production Marodi disons que ci Marodi lañ la gën a ràññee après euh, Billy Boy ñu bari fàtte woon nañu Samir mais dañu gisaat Samir ci beneen facette mu ñëwaat di liggéey ak Marodi euh, à chaque fois suñu gisee sa image mën nañu ne que Marodi la wala bu fekkee ne que yaa ngi ci yeneen production aussi génnagul balaa ñuy dugg tey ci li nga xam ne moo di une femme un mari bi nga xam ne mooy lëmbee àdduna donc rappelé ñu tuuti la ma waral ba tey yaa ngi biir Marodi pourquoi duñ la gis yeneen maison production yi. alors euh, c'est très simple que maa ngi dem ci casting yi. Donc, euh, je fais des castings, mais peut-être que les gens se disent que moi, j'appartiens à Marodi parce que pour le moment, Marodi, tu sais, une production là, il y a mhm. Mais je suis casting. Yep. maa ngi dem ci casting yëpp et puis bon j' espère bien que peut être dina am beneen production bu ma jël. mais c' est pas par refus euh, de ma part. Mm-hmm. ou euh, ne m'a pas verrouillé non plus sauf quand on est en contrat. Mm -hmm. mais une fois que le contrat est terminé après je deviens un électron libre. Mm-hmm. est ce que doo da nga bokk ci ancien acteur Marodi parce que Marodi mën nañu wax que ne Pod moo nekk moo njëkk a nekk li nga xam ne moom moo di produit boo xam ne voilà moo leen lancé nga bokk ci ci ci production boobu bokk ci ñi nga xam ne tey valoriser nañu Pod Marichou est-ce que loolu moo tax nga toog biir Marodi ba bon du loolu kese ah y' a autre chose à part les productions de de de Marodi donc euh, ils te mettent à l'aise aussi ça il faut le dire donc aujourd'hui il plein de choses qui ont changé comme euh, le cachet le, tu vois le, au niveau technique aussi ils ont beaucoup évolué euh, ils ont tout le temps de nouvelles idées donc y a, mm. ils essaient de toucher un maximum donc de de de monde, un maximum de, de, de classe sociale. Donc tu contredis voilà. les gens qui disent que le cachet n'est pas bon à Marodi Bon, le, le, cachet peut être le même pour toi et moi. Mm -hmm. je donne un exemple. Mhm. si on décide de me payer dix mille francs et toi dix mille francs. Mhm. yow dix mille francs yi mën na la bañ a doy man mu doy ma. d'accord et pourtant c'est le même. Mhm. léegi nekk yow yaa xool ni nga doylu rek ak fi nga bëgg a yóbbu sa image et puis après c'est tout moi je juge personne ceux qui ceux qui parlent ceux qui ne parlent pas moi je juge personne mais en tout cas man li ma am ak Marodi pour l'instant doylu naa. waaw ça c'est ça c'est c'est moi ça n'engage que moi. aussi limité woo ci production bi pour euh, jëm ci satisfaire say propres besoins gis nañ que voilà mu ngi mu ngi liggéey ci leneen lu bokkut ak production yi. ouais aussi commercial donc euh, au niveau de la CFAO donc mm -hmm. euh, pour ne pas faire de publicité je vais mm-hmm. <laughs> les marques que CFAO représente mm-hmm. voilà oui il faut xam nga fii Sénégal dara doyul. Mm-hmm. et puis quand tu as des des il est bon de toucher à tout pour mm. pouvoir mettre ces projets-là donc vraiment à, à terme pour nga mën a ne voilà ce que j'ai réalisé nga am loo bàyyil sa sa sa doom yi ak say waajur tamit ñu gis ne bon Eric jaar na fii liggéey na màgg na bon il a des trucs qu'il a qu'il a posé ici sur papier posé une brique. d'accord <laughs> euh, Vanessa wala Paulette boo ci bëgg ma wax la. c'est comme tu veux. <laughs> c'est bon peut-être comme que sénégalais yi peut-être xamoon. Mhm. mu nekk ci li nga xam ne moom moo di euh, scène musicale bi mais ça fait un moment gisuñu la après ñu mhm. gis la nga projeté. Mhm. nekk benn actrice biir Marodi sa intégration biir Marodi ak euh, pourquoi nga nga jékki-jékki euh, bon esan bàyyi musique bi dem dugg ci rôle actrice bi. Ben, je dirais déjà euh, <laughs> c'est un, ami très cher ki moom mu c'est euh, je, je, ne projetais même pas de, de faire du cinéma. Mais bon, euh, peut-être euh, aujourd'hui, euh, si sama biir sama biir talent euh, acteur gis nañ loolu alors j'ai j'ai testé j'ai essayé et aujourd'hui je rends grâce parce que c'est c'est quelque chose que moi-même j'ai découvert en moi que les autres apprécient mm -hmm. et par la grâce de Dieu je je souhaite que ça aille un peu plus loin si Dieu le veut

Voilà, les policiers rentraient même dans les salles de studio à voir le bruit, à voir les gens, puisqu'on était euh, presque 10 dans, une salle, alors c'était pas autorisé. Mm-hmm. Mais bon, euh, je pense comme tout le monde, on, on essaye de se reforger, de, de, reprendre le cours des prestations, des, des salles de répétition. vu que voilà vu que on est toujours là vous êtes toujours là xam naa ni que <laughs> côté boobu dinaa ci gën a xuus ci kanam tuuti mais ñu bari dañu nekk déggoo olof est-ce que Paulette dafay wax olof wala moom il exprime toujours le <laughs> le français. mais non dégg naa wolof parce que fi laa juddoo dégg naa wolof mais bon wolof may jaxase. wolof bi da ngay jaxase rek. <laughs> Moi, je voulais revenir par rapport à le fait qu'elle soit euh, mm-hmm. aussi euh, qu'elle ait, qu'elle ait aussi découvert ce talent d'actrice mm-hmm. parce que quand j'ai euh, quand tu es nag quand tu es soo nekkee artiste. Mhm. même musique parce que da ngay def ay clip. ay clip et dans les clips tu es obligé nga représenter yow li ngay woy wala dara donc tu là déjà tu commences un peu à jouer. Mhm. donc forcément il y a des petits talents donc il faut juste pousser un peu. pour mu feeñ pour mu génn en surface pour ñu xam ko donc le fait que moom mu nekk artiste yow dafa am peut-être beneen visage boo gis ci Paulette que neex na la. ah oui man elle m'a agréablement sérieux parce, ben oui, parce que man bi ma moom moo dugal ci Mara Diop. d'accord bi ma gisee bi ma gisee joue mu doon jouer face exactement li ñu ko doon laaj mu def bon. Ah, ça j'ai c'était compliqué en plus. Ah, c'était agréable tu tu découvres des tous les jours. ban surprise nga am par rapport ak li nga xam ne moom moo di image am boo koy gis ci biir série bi. bon xam nga kenn koo xam ne love lay woy ñu ngi naan Kabol love et c'est une petite lover donc il dit qu'elle est douce elle est tendre elle va être gentille et tout ouais. et là maintenant on lui demande de représenter tu vois mm. autre, autre chose, chose de ce qu'elle est si, si. un caractère ferme une mm. femme de poigne tu vois qui qui gère son foyer ah bah ouais. et qui ne laisse aucune faille. Une femme qui terrorise voilà, Samir. qui terrorise son mari <laughs> mais y a des femmes qui sont comme ça yoo xam ne du ñu bàyyi faille seen góor yi. parce que góor soo ko mayee jot rek day gën di def ay bêtises. Mm-hmm. donc c'est c'est ça ça a été ma surprise quand je l'ai vu jouer qu'il était ferme. que son visage suivait, tu vois, les, les, les, les gestes, tout ça là, que ça suivait, j'ai j'ai été agréablement surpris. d'accord léegi bu ñu ñëwee ci sa rôle yow nga nekk benn góor bu nga xam ne voilà comme moom mooy nekk sa sa jabar ci série bi une femme un mari mais dafay am rôle boo joué par rapport ak moom te loolu en général donte am na ci biir réew mi mais nekkul li nga xamante ne ni moom la ñuy faral di gis. ci mhm. góor ak ki nga xam ne yow yaa ko takk dem andi ko rôle bi nga joué naka nga ko jàngatee. alors man rôle bi dafa ma neex. <laughs> oui Eva rôle bi daf ma neex parce que a pas un homme qui rêverait d'être aussi fidèle aussi à l'écoute de son épouse mm-hmm. loolu yëpp amul mm-hmm. tu vois des gens qui sont à l'écoute de leur femme yoo xam ne jox nañ leen cër respecté leen quoi mm-hmm. qu'on puisse leur dire à l'extérieur ñoom ils conservent leur couple ñu ngi def lépp lu seen jabar bëgg et ça ça conserve le foyer mais bon aujourd'hui c'est vrai que c'est vu d'une autre manière góor yi tey dañuy bëgg di affirmer wu di wane ñoom ñooy ñoom homme de famille bi et tout mais est-ce que c'est vraiment cela l'amour parce que mhm. yow sooy ñëw di takk gel bi di ko doxaan tu es au petit soin mais boobu moment boobu yow sa faiblesse boobu doo ko gisagum uh-huh. mais soo leen nekkee ci kër nga jël sa jabar yóbbu ko ci kër rek et que tu réagisses de la même manière ngay continuer di ko toppatoo continuer di jël mhm. soin de moom on prend ça maintenant comme une faiblesse alors que fële on disait que tu étais un gentleman maintenant comment trouver moom noonu la mel wala voilà. dans la vraie vie Eric c'est un gentleman sama jabar mu ngi may déglu Chantal mu déglu. dans la vraie vie Eric c'est un gentleman et puis bon vous pouvez aller faire un, micro trottoir mhm. sama koñ wala les gens avec qui j'ai je parie je mise là-dessus qui diront que du bien de moi <laughs> lan moo tax ñu Samir ci rôle boobu donc alors dans dans dans l'écriture que que Pod a eu euh, par rapport à à une femme un mari mmh. il fallait quatre couples différents mmh. donc aujourd'hui vous avez un couple qui est mûr donc on va dire que c'est Vanessa et moi vous avez un couple qui est en train de se construire ça mm. va être Malcolm mm. et vous avez un couple deux deux couples qui se cherchent mm-hmm. tu vois l'un ça va se poser sur la femme et l'autre mm va se poser sur l'homme mhm. on a femme où elle aujourd'hui elle a besoin de stabilité parce qu'elle a déjà été mariée et divorcée mhm. donc tey lu mu doon def démb mu ngi koy rëccu elle a envie d'être aujourd'hui une femme modèle mhm. bëgg na jël góor di ko toppatoo alors que avant daanu koon def avec son premier époux dafa reewoon parce que c'était un mariage forcé elle n'était pas prête non plus donc koy neexal da nga koy kii tu vois tu vois, un jeune aujourd'hui qui tape sur tout ce qui bouge ou qui <laughs> bouge sur tout ce qui peut, tu vois. L'enfant voilà, turbulent. Voilà, moom l'enfant turbulent, moom il est dans l'âge de la puberté, mais il <laughs> commence à découvrir boppam gentleman là, tu vois, il est jeune, il est frais. <laughs> Donc voilà, il a envie de de de découvrir euh, tout tout le monde, de regarder, de toucher à tout. Donc voilà, on a envie de montrer cela. Et je crois qu'à part ces quatre couples-là, il n'y en a pas un autre qui existe. Mm -hmm. Donc dans Une femme, un mari, on a voulu représenter tous ces, euh, tous, ouais. tous ces personnages-là. Je crois que chaque couple pourrait s'identifier à ouais. l'un d'eux. À la société à, sénégalaise. Voilà, à la, toute la, hein, mm -hmm. On peut élargir ouais. du monde. parce que on parle de couple donc mbëggeel moom c'est c'est partout c'est dans le monde mhm. donc c'est voilà ce qu'on a voulu montrer dans une femme un mari euh, benn jigéen bu nga xam ne du ñuy faral di gis ci Sénégal jigéen buy dundee noonu ak borom këram même su fekkee am na aussi gars yi duñu ko ñemee wane que góor am benn benn voix bu mu am ci këram mais yow sa bi nga joué c'est différent par mhm. rapport ak ni ñuy dundee ci biir kër yi est-ce que mhm. euh, réellement yow dans la vraie vie bu amoon jëkkër noonu ngay dundee ak ndaka nga sentir sa rôle parce que Samir mi ngi wax sànq que bu lay seetaan ngay joué dafay kontaan <laughs> am fierté si yow parce que da nga ñëw euh, rôle bi ñu la jox yow nga matale ko par rapport ak image bi ñu la doon xoolee. leneen la kay ben je dirais déjà que Paulette déjà est quelqu'un de très timide alors c'est c'est autre chose Vanessa et Paulette c'est très différent. Mm-hmm. c'est très opposé. Euh, dans la vraie vie je dirais que comme il a dit Pod bu mu bindee euh, scénario bi je pense qu'il voulait représenter tous les caractéristiques. Euh, de la femme en tant que telle et aussi euh, fan la jalousie femme mën a mën a toll. Mhm. fan la euh, mën-mën jigéen tam mën a toll quand elle aime son mari ce qu'elle veut son vouloir ce qu'elle ce aime et naka la mën a comme comment elle peut faire pour euh, euh, comment je vais dire ça. pour protéger waa son foyer. pour mhm. tamit jëkkëram toog. Mhm. bañ a dem pour am y a les petits trucs euh, que tu ne que tu ne pas et le dans le scénario. Euh, on le montre. C'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des différents, différentes choses que beaucoup de personnes diront que de peu. Mhm. D'autres diront non, qui de fouille, de fouille, mhm. Mais moi, je pense que Pot a voulu euh, mettre en, en, image là tous les caprices d'une femme en tant que Sénégalaise. Je dirais Sénégalaise, mais c'est sûr qu'il y en a dans, dans les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, une femme, elle est capricieuse, mais dans ces caprices-là, mbëggeelam dafa fort. Mhm. alors parfois elle est dure elle est sévère parce qu'elle ne veut pas perdre son mari elle ne veut mhm. pas perdre son homme. Mhm. mais après benn instant dina wàcc. et aussi il y a d'autres femmes qui pensent que cette poigne là qu'elles ont loolu mooy a d'autres diront non c'est pas vrai. Euh, d'autres diront oui c'est comme ça ça dépend au fait de l'homme avec qui tu es. moom li nga koy def daa mel ni nakaare ko sax neex na ko. <laughs> <laughs> mais ouais, étant étant voilà étant timide dans la dans la vraie vie nga ñëw ñu jox la rôle boo xam ne des fois tu es agressif des fois tu débordes des fois ngay utiliser yenn mots nga xamante ne ni jëmale ko ci ki nga xam ne sa sa hmm, sa jëkkër la est-ce que début bi ça a été facile ah non du tout alors parce qu'à chaque fois on me corrigeait non il faut être plus <laughs> alors j'étais là j'étais là je réfléchissais et comme lui heureusement on, a grandi ensemble mm-hmm. il était là alors c'est j'ai eu la chance ah parce que si c'était quelqu'un d'autre je pense que ce serait plus compliqué. le fait que mu nekk sa peut-être sa sa sa xarit la. waaw sama xarit vous avez grandi ensemble nga ñëw ñu boole leen. ah oui donc loolu moo la facilité. ah je pense bien peut-être aussi euh, qu'il y a comme il dit euh, le fait que je sois artiste. parce que aussi quand tu es en en tournage de clip c'est pareil. Il faut que tu sois sérieuse il faut que tu incarnes ce que le scénario demande c'est c'est pareil mais là avec. Euh, Euh, les séries, c'est un peu différent quand même. D'accord. Parce que là-bas, tu es, tu es free, c'est pas pareil avec ce qu'on te demande de faire. Mm. Parce que là, dans les scénarios, la femme, l'une, là, pour incarner, il faut pas que tu dépasses ça, il faut pas que Mouberi, il faut que ça soit à sa place au fait. d'accord bu ñu ñëwaatee ci Samir naka nga jàngatee une femme un mari euh, comme son nom jigéen bu nekk am jëkkër est-ce que c'est facile tey par rapport ak euh, situation bi ñuy dund ak euh, mm. voilà jafe-jafe yi am ci réew mi yëpp polygame bi euh, bon góor ñu ci bari léegi ñemeetuñ ko ku ci nekk ak cause bi tax nga wax mm. dootoo dootoo dugg ci polygame mais yow dañuy faral di gis par rapport ak fi nga xam ne fi nga bokk c'est pas facile que man gisaguma ko bokk benn benn catholique wala peut-être benn tubaab bu nga xam ne dafay jël ñaari ñaari jabar yéen seen seen kii bokkul ak ñun par ak li nga xam ne moom la ñuy dund yow nga ñëw ñu jox la rôle bu nga xam ne peut-être disons yaa xam noo koy analyser wala ndaka nga koy diagnostiquer ndaka nga gisee une femme un mari ak est-ce que tey jii idée bi nga xam ne moom ngeen ñëw pour imposer ko Sénégalais yi est-ce que ça sera facile je crois que quand Pod écrivait le scénario, il n'avait pas, il avait pas pris, en, en il n'avait pas parce que bon, nous c'est écrit, c'est figé, c'est bloqué, hein. Ah. c'est <laughs> Donc euh, il faut bien réfléchir avant d'entrer au mariage, les gars, je vous le dis. <laughs> Alors, mais on est dans une société où on de musulmans. Mm plus de femmes et aujourd'hui les jeunes pensent que pour se marier il faut forcément nga def benn réception bu mag nga am benn liggéey bu fixe wala quoi que ce soit mhm. l'idée est de euh, faire savoir aux gens que tu peux tu peux avoir une femme et que cela ne t'empêche pas de de continuer à à te chercher dans la vie mhm. parce que c'est ensemble que vous pouvez mieux avancer du mhm. ñaari loxo mën quatre loxo su amee da koy moo mooy gën et puis bon une fois que tu as trouvé une femme et que tu dois en trouver une deuxième là c'est le message pour les femmes pour dire il faut laisser vos hommes quand même ne ne, ne verrouillez pas la porte. Mm-hmm. parce que yow boo demee ba nga am kenn ku la takk soo tëjee bunt bi moom du mën a takk keneen ak keneen. Mm-hmm. et si on va dans le sens où bëggoon naa am bic ak feuille sax pour mu mën leen dessiner affaire bi <laughs> parce que suñu defee dix jigéen. Uh-huh. ñu def cinq góor. Mm-hmm. ñu ne une femme un mari nga lié ku nekk benn ça veut dire que. il y aura chaque femme va avoir un mari. mais le mari. Mm -hmm. il aura plusieurs ci vois dans c'est dans ce sens là. Mm -hmm. donc pour montrer aux gens qui peuvent qui peuvent ne nañu sëy. est-ce que pour xool ci intérêt boppam tamit. waaw parce que y a aussi xam nga les gens peur de se marier. oh là loolu dafay pousser tamit nit ñi di dem di am ay copines. di leen biiral bàyyi leen seen kër ngeen continuer nekk seen kër parents yi. Mhm. alors que kii bi suñu wonee suñu suñ ko suñu wàññiwee dii saay bi. peut-être jeunes yi dinañ gën a osé ñëw takk jigéen ñi yóbbu leen ci seen kër. ba wàññi dot bi ne cent affaire bi nekk affaire bi nekk lu légal man daal affaire bi na légal. tu vois je crois que su légalee day day gën a neex. nga jël euh. nga jël sa doom ne ko am denk naa la telle personne. Euh. xam nga même si demain ils divorcent mais au moins vous avez essayé. Mm-hmm. de de les mettre en couple vous avez essayé de pousser ce jeune couple là pour ñu nekk benn foyer benn mm-hmm. famille. yaa yow génn nga ci moom. waaw man moom man c'est <laughs> figé yow boo ko yow yow <laughs> waaw man c'est figé loolu moom kenn mënu ko changer moom. si si kenn mënu ko changer mais je mm-hmm. crois qu'il allait dans le sens où on pouvait nga def lu légal moo gënoon ñuy nekk gauche droite xam nga di doon di mhm. daaxee après di nëbbatu fii parents yi ainsi de suite mais mais bu dee pot mooy scénariste bi moom je pense que intérêt boppam la ci xool <laughs> ah bien sûr ba nga jël ñaar ñett ñeent xam nga pot moom dèjà moom deram yàqu na ci réew mi te dafa bëgg jigéen euh, Paulette euh, ñu ñu gis que ni ah? <laughs> waxuma ko déjà sénégalais yi noonu lañ koy gisee boo nee pot rek ñu ne moo dafa bëgg jigéen parce que déjà personnage am ak personne bi nit ñi dañ koy jaawalee en général sénégalais dafay am peut-être amalgame boobu dafay mhm. jouer ci boppam euh, peut-être ñu gis que ne conférence de presse bi jigéen ñi doon def ci biir euh, une femme au mari voilà ñoom ñoo jël seen initiative bu bopp te man mhm. loolu dama foogoon ni que góor ñi ñoo ko waroon def une mhm. femme un mari boobu pour xool ci seen intérêt boobu ce qui veut dire ni jigéen ñi léegi lamb nañu boleet ah <laughs> <laughs> jusqu'à arriver à ce point là góor muy nekk 4 ans 3 ans après dem tak keneen ah da ngay Mm-hmm. da nga naan mais man tamit il faut ñu takk ma. Mm-hmm. d'accord ah mais c'est tout à fait normal gël yi fipp tamit <laughs> suñu gisee ñu ngi commencé di bëri. Ah. te góor yi suñu amee benn jabar fa ne ñuy yem. attends mm. donc finalement ils vont plus se marier donc il faut il que ñu yëngu léegi. affaire bi mm-hmm. c'est d'accord waaw <laughs> jigéen ñi wane seen bopp de ah. wane seen bopp léegi ñu ne <laughs> waaw mais mais genre Paulette gi du ñu am de yow yow doo am yow doo am de. non man pare naa ci. mais ah. Paulette mën na am. d'accord Paulette mën na am. d'accord mais je pense que jigéen ñi je pense qu'elles ont le droit de réclamer. Parce que c'est vrai qu'ici, en Afrique, c'est tabou de voir une femme qui va vers un homme ou bien une femme qui, qui prend ces initiatives-là. Mm -hmm. Mais moi, je pense que warul am yenn yenn tabou si yooyu noonu parce que nit nit nga rek après tout tu as, tu as besoin aujourd'hui suñu suñu euh, société bi c'est un peu compliqué mm-hmm. de voir jigéen buy dem doxaan góor wala de voir jigéen buy qui qui va s'affirmer à un homme lui dire tu me plais beaucoup c'est c'est mal vu au fait mais moi je pense qu'en tant que personne c' est naturel li góor moom la jigéen war a yëg. voilà donc euh, on a tous des sentiments on a tous euh, ay sentiments je war na dañ tuuti et je pense que de ce côté-là euh, beaucoup plu parce que aujourd'hui les femmes sont en train de dénoncer ce qui les chagrine aujourd'hui parce que comme il a dit da ngay après mu jékki-jékki dem takk keneen tu te dire tu as perdu sept ans comment comme ça tu t'es lui tu as présenté à tout le monde tu avais des loolu yëpp ça fait très ce qui fait que jigéen ñi tey euh, dañuy mbaraan parce qu'elles se disent mais ça sert rien que je reste avec voilà, un gars qui va me est-ce que du loolu mooy cause bi aussi góor ñi respecté tuñu jigéen ñi ba leen di tàgg c'est parce que aussi jigéen ñi li ñuy wan góor ñi pour dund ak ñoom nga ko wax ci jigéen et aujourd'hui euh, on n'est plus dans une société nga xam ne suñu maam yi defoon nañ ko on n'est plus dans le genre de soumise muñ loolu loolu dafa jeex parce que si on regarde bien aussi, suñu nos les hommes aujourd'hui nous ont poussés à arriver là. Mhm. parce que suñu demee ba ba respect amatul ci benn couple même si c'est pas des gens mariés alors euh, am na lu bari nga xam ne dafay dañ. parce que quand tu comme on dit euh, góor la parce que nos nos papas nous ont éduqués en tant que tels. Mm -hmm. tu es avec un homme xamal ne ne la toi tu fais ton rôle de femme xamal ne ne que jigéen ak góor mënuñu nekk benn. yow suñ la takkee da nga yem fu ñu la yemloo mais bon y a des y a certains certaines caractéristiques de l'homme que tu recherches par exemple ñun xam nañ ne góor alors il va toujours euh, aller voir ailleurs alors. Euh, comme suñu maam yi tu veux dire que les hommes sont sont toujours infidèles. <laughs> ben l'infidélité fait partie parce que je, il y a une philosophie qui le prouve hein, mm-hmm. que l'homme en tant que tel est infidèle. Mm-hmm. alors euh, et ça a été prouvé je pense que jigéen su dugalee loolu si boppam rek euh, du sonn. Euh, l'essentiel góoram na ko jox respect mooy si biir foyer mooy fu mu nekk. d'accord ñu mën a xam ne ne kii jabaru Samir la Samir tam mën a wone ne kii sama jabar la. Mhm. autre part on s'en fout de ce qu'il fait si la femme met ça dans sa tête je pense qu'elle n'aura pas de souci. elle n'aura pas de problème parce qu'aujourd'hui que ce soit Sénégal que ce soit dans tous les autres pays les hommes vont voir ailleurs. c'est et c'est très rare je ne dis pas qu'il y a des il y a pas d'hommes fidèles il y en a. Mhm. il y en a mais euh, avec la société qui nous entoure aujourd'hui wax yu sew yi copines yi copinage yi quand tu prêtes ton oreille à l'autre doo doo mën a doo alors il faut toujours qu'on incarne ça qu'on se dise il est mon mari il est ma femme chacun se donne respect. Mhm. et chacun xam lu tax mu nekk ci biir bi. c'est mhm. tout le reste on le gère. d'accord par rapport à la religion surtout. tu donc yow yow <laughs> non pour le moment non. Mm. cherche carrière. pour le moment, je euh, cherche, à, je cherche de l'avant. mais eh. yaa ko wax léegi que dañu arrivé ci monde bu nga xam ne tey jii c'est très difficile de trouver un mari parce que wax nga ko léegi góor ñi mm. dañuy génn jéw benn 4 ans ba 7 ans. Mm-hmm. tardeel la fi dem seeti keneen. Mm-hmm. est-ce que c'est pas le moment aussi nga dem xool lu baax toog. ben comme je dis toujours yàlla rek moo xam yàlla su ko indiwee on va gérer y a pas de souci. mais, mais bon je pense que voilà pour le moment. Mhm. nekkul ci projet yi pour le moment je pense que comme li ñuy wax rek euh, assurer avenir euh, sama doom yi. Mhm. assurer avenir paa bi ak mère bi. Mhm. surtout sama boss. d'accord au moins que demain xale yi mën a toog bañ a wax ne ah nous on est fatigué wala. pour le moment loolu mais yàlla su ko defee ci yoon mu xam ne ne que lu baax la ak lu lu gën la on le prendra. tu es d'accord avec elle. ah mais bien sûr. <laughs> yow mi ngi mi ngi lay dugal de yow yaa ngi sa biir kër toog yow sa soxna yow say doom di dund sa àjjana. <coughs> macha allah yombul. Mhm. Euh, mhm. je ne suis pas chanteur. mais j'ai eu beaucoup d'amis yoo xam ne ñoom ils sont dans l'art mhm. dans cet art là donc il y a beaucoup de jalousie parce que tu sors tout le temps mmh. tu rencontres tout le temps des donc pour nga am jëkkër bu la comprendre c'est très difficile on ne met pas la faute sur eux ni sur Paulette non plus mais juste pour dire que pour nga nekk ak artiste dafa compliqué mhm. donc il est préférable yow que tu te concentres sur ta carrière et une fois que tu as tes assises nga xam ne mhm. am lu la doy yow su boobaa même si si tu aimes ton mari tu peux dire bon ok moi je me retire. waaw y aura des sacrifices je vais gérer mon foyer. waaw les sacrifices à faire. mais pour le mhm. moment elle est encore très jeune. elle peut encore pousser. tu vois elle peut être connue un peu partout dans le monde. elle a déjà posé un pas. tu vois, à l'intérieur de cette musique-là, où musicalement parlant, on la connaît un peu partout. Mm -hmm. Donc c'est le moment de pousser ça encore beaucoup plus loin. On est dans le corona, on est dans, on est, on est dans, dans, dans le monde aujourd'hui virtuel. Mm -hmm. Donc tu peux évoluer, aller au-delà de tes limites sans bouger du Sénégal. Mm -hmm. Donc c'est maintenant qu'il faut faire, qu'il faut faire le maximum. Mhm. Faire des clips, faire des chansons, être dans, dans la musique, être dans, dans, dans, dans le cinéma, mhm. être partout. tu vas être vu partout, te, bien te poser. Tu, bien tu es là pour la soutenir. Je te vois toujours prendre position. Oui. sur sur Colette. lan la seen relation yéen ñaar. sama petite sœur la <laughs> ñun ñoo ñoo magandoo Baobab. tu vois ñoo magandoo Baobab. liberté 3 liberté 2. déjà avant man c'était une fierté pour moi bi ma ko mhm. daan gis boobu j'étais pas encore très poussé dans le cinéma. Mhm. je faisais de petites publicités à gauche à mhm. droite et c'était euh, grâce à ma maman. Joséphine Zambo. Et aujourd'hui, euh, on peut dire, euh, c'est elle qui vient me retrouver dans, dans mon art. Mm -hmm. Donc tu vois, mm-hmm. c'est une fierté d'avoir tiré une sœur, mm-hmm. Ce qui veut dire que milieu de Fayatou. Ah, bah, Exactement. Oui. Mm-hmm. Donc peut-être que moi, je vais préparer Ben Way comme ça, vous savez, Ben Ben Futur bah, je, juste un petit truc, c'est comme il l'a dit, mm -hmm. euh, si, euh, si nous, nous, nous, yow soo amee jëkkër par exemple comme il est sorti dem ñëwaat tu n'as pas le temps de ton homme si góor yi sax ça va. Mm-hmm. c'est gérable quand c'est un chanteur c'est un peu gérable mais si ñun c'est très compliqué très compliqué. mais da di nga gis sax ku la mm-hmm. mais après li ci biir. Mm-hmm. ah non doo xam sax fan lay jógee parce que tu vas te dire c'est pas le gars que j'ai connu pourquoi comme ça après. il faut que mu nekk nit bu nga xam a supporter qu'il qu'il puisse quand tu es un homme du peuple mm -hmm. tu appartiens à tout le monde tu es obligé de sourire mm -hmm. d'accueillir les gens qui viennent vers toi mm -hmm. et ça ça peut être perçu autrement mm-hmm. yow ni may waxtaane ak yow complicité bu ñuy am mm-hmm. si tu avais un mari aujourd'hui yow nga nekk en tant que en tant que journaliste mm-hmm. tu vois présentatrice yow sa jëkkër mën na ko gisee neneen ay ah, yow da ngay charmer Samir parce que acteur la man je suis rien je suis à la maison <laughs> personne ne me connaît on va le voir autrement tu vois Donc, c'est des exemples que je donne, hein. pas mm -hmm. forcément pour, euh, pour, pour nos couples euh, dont, dont, dont on a parlé, mm -hmm. mais on le voit aujourd'hui dans plein de chanteuses, moi je dirais même mhm. à 70% ouais. des chanteuses je vois au et je comprends très bien ce que vous voulez dire mhm. parce que voilà c'est très difficile ak milieu bi mhm. man lu yàgguma ci mais donc maa ngi commencé di dund yo nga xam ne dafay am lu may jàngal dans la vraie vie euh, donc ñu ñëw ci li nga xam ne xam naa foofu la ñuy tëjee finissons-en avec, euh, bon, en beauté. Euh, <laughs> Eric en personne et Paulette en personne Paulette euh, déggoon naa fi ñu ne dafay génn ak euh, Philippe Montero. ah fi <laughs> que am nañ fi diwo ñoom ñaar te sénégalais moom dafa tàmm di imaginer wala muy créer des choses yu nga xam ne. Hmm, mais comme elle est là on a eu l'occasion de la de lui demander la question elle n'a qu'à répondre publiquement. ben je dirais déjà dama lay yokkal parce que c'était pas seulement Philippe Montero c'était <laughs> Philippe Montero. Carloudi et Fodé Barreau. Mm -hmm. Peut-être moi après, ben... après une femme mariée, on ne sait Franchement, jamais. je pense que ça sera bientôt. Ça bientôt moi. Euh, ces gens-là, au fait, sont des gens avec qui j'ai travaillé, mm -hmm. jour et nuit. Euh, Fodé Barreau, j'ai fait les chœurs pour son album. Carloudi, mm -hmm. pareil. Philippe, euh, tant d'albums, que ce soit des Caverdiens, À chaque fois, c'est moi qui faisais les chœurs et on a fait plein de tournées ensemble aussi. Alors, ce sont des gens que j'ai côtoyés et des gens qui me déposaient peut-être le tamit chaque 5 h du matin ou 6 h du matin parce qu'en studio, c'est juste euh, la soirée. Mm -hmm. Ça commence à partir de 21 h matin bi tant que le travail est là tu, tu le fais mais euh, aujourd'hui moi je, je, rends grâce parce que ce sont des gens avec qui qui m'ont permis d'avoir beaucoup beaucoup d'expérience mm -hmm. que ce mhm. soit Fodé Barreau que ce soit Philippe que ce soit Carloudi et les autres Tchedo ça ça ça moom maa ngi leen di sant mais bon aujourd'hui la bouche des Sénégalais on ne peut pas contrôler peut-être comme on dit qu'ils cherchent à savoir mm -hmm. ce qui se passe ce qui est ce qui n'est pas loolu la ñuy ut moo tax ils prêchent le faux pour le vrai comme comme on le dit mais euh, ce sont tous des grands frères mm -hmm. et ce sont tous des des gens qui m'ont qui m'ont vraiment soutenu qui m'ont beaucoup aidé et euh, j'ai découvert beaucoup de choses à travers la musique parce que j'étais très très timide je pleurais pour un rien du tout je rentre je fais une voix Philippe me dit c'est nul je pleure Fodibaro me dit maman maman toi aussi qu'est-ce que tu as fait comme ça je pleure <laughs> alors aujourd'hui ça m'a beaucoup forgé parce que mhm. j'étais quelqu'un de très timide de très fragile et à travers la musique euh, j'ai eu la musique et aussi ma foi mm -hmm. je dirais surtout ma foi j'ai eu beaucoup de force pour pouvoir continuer parce que chaque fois damay wax damay bàyyi y a pas y a pas mais vous avez une belle voix amen Et euh, je souhaite qu'elle soit encore meilleure, <laughs> encore plus mature. Uh -huh. Mais bon, je rends grâce quand même. D'accord. Wow. Et euh, que tous ces gens-là sont des gens euh, que je n'oublierai pas parce que ce sont des gens qui sont sur mon, dans ma vie, que j'ai rencontrés sur mon chemin et que ce sont de très, très belles expériences. D'accord. Voilà. Et j'aurai je, je, je, à dire ça aussi plus tard avec, euh, avec Samir et Marodi. <laughs> pas une surprise, parce que c'est de ce qu'on était en train de parler juste avant que tu poses la question. Mm-hmm. quand, tu, es devant le public, donc euh, les gens ont envie de rêver. Mm -hmm. Les gens ont envie de, te découvrir. Et il faut toujours garder ce mystère-là. Mm-hmm. Uh-huh. que... Il faut, garder un mystère pour tes uh-huh. fans. Mm-hmm. Ils, ont envie de se poser des questions. Est-ce que Paulette. ñoom mhm. ñaar gis naa leen benn soirée. Mhm. jabaru Eric nekk fi woon comment ça se passe les deux là. eh tu lances un message à ta femme <laughs> mais non il lance un message à tout le monde. pour dire que. Mhm. loolu du ñàkk de. dina ñëw de. waaw. <laughs> on va écrire ça quelque part et puis le jour où ça va sortir cette feuille. pourtant on l'avait prévu. mais c'est comme ça quand tu es un homme du public tu n'appartiens à personne. les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. on est dans une démocratie. ils peuvent se il faut se donner de rêver de de de s'expliquer ce serait beau de voir une Paulette qui chante et un Philippe Montero qui chante ñoom ñaar ñu nekk ensemble. peut-être que les mm-hmm. fans avaient envie. mais mm-hmm. ils se sont dit venez on va créer ce truc là <laughs> allez allons-y. mais alors qu'est-ce qu'on peut pas empêcher aux gens de de mm-hmm. rêver ou de parler. moi en tout cas man quand les gens me critiquent man je suis content parce que ñu ñu may seetaan et puis ça ça montre que j'existe en fait. j'existe. d'accord si tu n'existes pas on parle on pas parle de pas toi. de toi. mais moi j'existe parce que les gens parlent de moi. d'accord. mais yow ak Paulette dara xew fi. macha c'est ma femme. c'est ta femme dans, dans, une femme un mari. mais oui après après film bi. après film bi c'est ma sœur. c'est ta sœur oui. d'accord c'est clair. Eva eh comme de l'eau. merci beaucoup ami internaute Sunugal 24 mbégte la doonoon ci man tey ma dalal fii euh, ce jeune couple là. Mhm. Samir. ak euh, Paulette. j'aime ce mot jeune. <laughs> tu veux être jeune non. mais, mais tu es je toujours suis. jeune. tu je es voilà, toujours jeune. bien sûr vous avez du charme. je confirme naka ngay dundee ak xale jigéen ñi. oh c'est c'est c'est une histoire de love. Mm -hmm. c'est une histoire d'amour c'est c'est une histoire de c'est un échange parce que elles elles disent que je suis très accessible. chaque fois dañuy nekk di waxtaan di échange il m'arrive même d'aller leur rendre visite mm-hmm. seen biir seen biir kër ak seen parents yi ak yëpp mm-hmm. mm-hmm. donc euh, en tout cas j'ai j'ai de j'ai super fans quoi. ça je le confirme. te comme man dama fokkale. gars yi il faut ñu may indil ay añ ay reer di ma invité di ma yekkal may lekk rek. dans tout ça madame <laughs> fan lay nekk. madame mi ngi fi. ndax wax dara elle n'est pas jalouse. et eh, mosula dal nii depuis que nga commencé nekk benn Samir bu nga xam ne tu es connu partout dans le monde que jigéen ñi commencé la teg soog vous avez eu des problèmes avec ta femme parce qu'elle est jalouse. ah yeggagul ci problème mais teg soog moom chaque jour la. Mhm. saa yu ma ubbee sama téléphone dugg sama Facebook wala sama Insta moom moom dinaa fa fekk benn message d'amour moom. d'accord <laughs> waaw loolu du ñàkk comme je disais il faut laisser les gens il faut il faut les laisser rêver. Mhm. xam nga en général même mhm. euh, surtout euh, les stars américaines mm -hmm. très souvent ils n'ont pas envie de montrer leur vie privée parce que ils veulent être accessibles à leurs mhm. fans mhm. le fan doit doit se dire gain bi il me fait rêver je imagine-toi un jour je suis marié avec Samir ou bien je suis marié avec Paulette comment ça va être ma life le gars là mhm. je l'aime trop la fille là elle est adorable donc il faut laisser les gens rêver <laughs> on, on représente un personnage et notre vie privée on, on, on, la gère derrière, tu vois, avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants. Mm -hmm. Et c'est ça qui est agréable. Mm -hmm. Parce que si on est quelques fans, si Parce que nous, on le défend aussi. Mm -hmm. Si tu n'avais pas de fans, si tu n'avais pas de gens qui te regardent, si tu n'avais pas de, de, followers ni rien du tout, tu serais personne. Mhm. Tu ouais. vois? Donc on leur doit cela aussi. Mais Samir Bimakham, mon frère que j'ai beaucoup adoré, c'est un peu différent ak samit bi ma gis ci une femme un mari j'aurais bien aimé que nga fippu nag nga commencé dal ci kawam nag <laughs> ah ñu gis beneen samir sax mais dafa mel ni yow yow ni ngi jàkkaarloo ak Paulette nii sax ñime ko xool comme si yéen ñaar da ngeen dund lu garaaw loo xam ne ah. <laughs> regardez la suite s'il vous plaît voilà xam nga série bi jeexagul ah. seetaan leen ba fin joogi fin moo neex <laughs> <laughs> da ngay mujjee retourner bal bi si kaw. non je ne donne pas de filon. seetaan leen <laughs> sinon doo leen seetaan. xam nga livre moom doo commencé page ci ginnaaw ci kanam ngay commencé. wallaay ngeen ah. yeggali leen livre bi rek. mais kontaan naa tey trop parce que. c'était pas facile que yéen ñaar ngeen euh, ñëw fii mais mhm. euh, surprise da boo nga xam ne man yow laa koy gërëmee mhm. Samir c'est ton frère Surtout. que j'ai beaucoup aimé merci beaucoup di la wax nga tàggoog ñu ñuy seetaan ci suñu 24 bon continuez à regarder l'émission de cette adorable jeune dame hein vraiment euh, waa suñu gaal ci émission Pello ñu ngi leen di gërëm di leen sant on vous remercie vraiment de continuer à suivre cette émission là ñu leen di remercier ci lépp li ngeen di def parce que sans vous on est rien donc affaire bi échange la mhm. ñu nag yéen la

bon, Samson. <laughs> Terminons avec ta belle voix. <laughs> ok, d'accord. Hoje está sentado, tá passando a boa. Ma boca tá nem preocupada de mim. Lá onde que você está longe de mim. Hoje está sentado, tá pensando a boa. Ma Sin saber, papá, papá. Nunca se para, papá. Amor sem saber mais, amor ingrato. Yeah. yeah. Vous méritez des applaudissements. Merci. <laughs> merci beaucoup. Merci à toi, Eva. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe, mm -hmm. euh, au caméraman. Il s'appelle Il s'appelle Libas. Merci à Ibas. Merci Ibas, à Libas. Libas. Merci beaucoup. <laughs> Et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. seen jouru mariage fii laa leen di invité. def leen vaar bu rëy nag parce que. miim nga miim na donc dam leen di vaar. incha sama tippoo nga bëgguma la def dara lu metti mais jàppal ne que dorénavant lay commencé di la gasal kàmb goo xam <laughs> noonu dëgg sërëx bi su ñëwee damay ragal yow da ngay suulu. ban ban bi dans la vraie vie. mariage kan yow ak Paulette. <laughs> mais moi je suis déjà mariée. mais tu es déjà mariée mais laay <laughs> créé fii guerre mondiale. Dieu tout puissant mais dama bokk ci émission bi wala naka la. non <laughs> dama la dama la piégé yow. mais nag. Euh, <clears throat> neex na ba noppi. kontaan naa merci beaucoup. Euh, merci beaucoup am internet Sunugal 24 di leen jaajëfal bu baax a baax ci tànneef gi topp gi ak kóolute gi ba tax na ni lay demee saa su nekk ci suñu ay programme di ko waxtaanee tey euh, Samir laa leen dalaloon tey. ngeen ràññee ko lool de son vrai nom Eric Patrick Gomis ak ki lee di euh, Vanessa de une femme un mari nekk Paulette la grande diva l'élégante la mm-hmm. grande chanteuse l'internationale Paulette moom lañ dalaloon tey di leen jox dig daje prochainement ci yeneen émission biir euh, Sunugal gal ngeen di ay di ci ànd ak si Seva di leen wax abonné leen activer seen cloche de notification ngir ngeen mën a am suñu vidéo à temps réel di leen jaajëfal bu baax a baax encore une fois te leen di jox dig daje beneen yoon incha Thank